dinañ jàkkaarloo également ak ki nga xam ni lu ñu woon ci liste bi muy cher ay ñu dégg tamit suñu bi tàmbali na gis ngeen taxawaay bi ci am bëgg na mu majorité au niveau de l'Assemblée nationale ndaxte ay góor ñu ñu am fit am li ñu bëgg ñenn kenn duñu leen xaw a xatal ñoo nekk ci assemblée nanu saaga nanu sosal nanu tiigal nanu arrêté

you. douze jours moo ci war a des defagoo dix départements yu mag mu desee la trente six départements ngeen fa ne mun nañu toog fii lay ba guddi ak Kaolack comprendre nañ ne RTS d'accordu ak moom xam nañ ne d'accordu leen ak Racine Talla xam nañ ne RTS ci injustice parce que dañuy jël te jël tox ko waa nguur waa pouvoir te loi dafa ne dafa am droit d'accès aux médias d'État au pouvoir au droit de l'opposition l'opposition a un droit d'accès aux médias d'État Racine Talla ak Macky Sall dañoo jël RTS surtout à émission yi nga xamante ne ay émission contradictoire lañ doon une ñu opposition Nous loolu l'avons ñuy fustiger di wax ne loolu dañ koy corriger Racine Tala na assumé ses responsabilités historiques parce que mon modèle, le service public de la communication est ko def ko marron beige le nag béni sénégalais du d'accord Mon mot tax leen message bi, RTS c'est un service public et le service public est régi par le principe d'égal accès aux citoyens

mon mot, tax bu contrat de législature avec député nga parce que ki nga xamantene day ñew ne candidat la ngeen def ko député mu dem assemblée nationale mu ne candidature route c'est une fausse candidature donc il faut faire une alliance un contrat de législature avec les vrais députés de député yi nga bu ñu yëgee assemblée nationale danañ wax ci turu Kaolack danañ téye mbiru Kaolack danañ jooy xeex pour mbiru Kaolack gis naa gouvernement jël ko en charge ma ne leen bu boobaa bu ñu toogee am assemblée nationale am fa majorité danañ imposer gouvernement bu Sénégal mu muy def ay contrôle yu leer parce que le rôle de contrôle parlementaire est un pouvoir constitutionnel parce que l'Assemblée nationale doit avoir des saytu li nga xamante gouvernement di def da war di évaluation des politiques publiques l'OLU 5-5 pour bees la ba nga xamante ni constitution moo ko jox assemblée nationale depuis 2016 waaye même boo demee ci règlement intérieur à l'Assemblée nationale 5-5 pour sax jëluñ ko en compte L'OLU, nag lu ñuy régler pour que l'Assemblée nationale toog fi mu war donc quand nous nous permettre faire def contrôle de performance des évaluations périodiques des politiques publiques nous allons leen dëkk gouvernement Macky Sall a def 255 milliards 255 milliards Anna. Anna député Kaolack bi nga xamante ne ne jël na takk ndigam ne day vérifier loolu day contrôler loolu loolu moo moo xamante ni amul donc loolu parce que député yi ñu am c'est des députés fantômes ay députés yoo xamante ni représenté wuñ Kaolack waaye nag Sall la ñuy représenté loolu nag moo war a jeex rep député da ngay nekk un député du peuple comme l'honorable député Déthié Fall da ngay nekk un député du peuple comme l'honorable député Ousmane Sonko nga nekk un vrai député comme Aïda Mbodj donc ñooñu ñu mel noonu nag lañ bëgg am ay dizaine ay dizaine ak ay dizaine ci assemblée nationale bi di parce que assemblée nationale nek li nga xamante ni mom la Sénégal di xaar ci mom donc di wax né wa Kaolack mobiliser wu len gis nañ xoxotal yi waaye nag wane ngeen né Kaolack Yewwi Askan bi moko mom moom ngeen né Fini bo boo Bokk Yakar, mom mo fi am dara parce que changement bi Kaolack tànn na depuis local yi donc dañ koy confirmer le 31 juillet wayé wayé faut ñu sécuriser suñu vote parce que Benno Bokk ne compte que sur l'achat de conscience et la fraude électorale lolu nak ñun ñoy mobiliser wu amné jour scrutin amul benn xobu yeewu askan bi buy jadd beneen bi mooy que nañ mobiliser wu képp kuy génnee xaalis ñu topp ko ba boo génnee xaalis mu tabb ci perte ñi koy jël duñu la wotel ñu wax ak askan bi ci kër yi ci grand place yi ci marché yi moo moo tax ci loolu ñu ngi gërëm bu baax waa marché central bu kaw Kaolack di leen wax ne xam naa président Ousmane Sonko dina wax ak yéen war nañ fa yëg si waaye nag xat na. campagne bi xat na te dese na leen donc loo xamante ne ay département yu bëri yu ñu war a def moom moo tax ñu taxaw fii nga xamante ne nii dañoo war a dem Kaffrine te woo nar a fanaan si waat Kaolack donc loolu moo waral xat-xat bi loolu nag ñu ngi ciy jégalu bu baax xam nañ ne mobilisation bi fu war ci Kaolack loolu lañ fay fekk waaye nag temps ñu tënk tënk leader yi.

quatre-vingt pour cent ñu may pour cent yi Benno Bokk Yaakaar ak ñeneen ñi séddoo gars yi nee nañ cent pour cent cent pour cent pour cent cent pour cent cent pour cent pour cent pour cent pour cent pour cent jërë jëf mbokk Kaolack mbokk Sénégal maa ngi nuyu yéen ñëpp di leen yëgal ne di leen yëgal ne dama bokk ci ndaw yi nga xam ne dañoo yónnee ensemble te xam ngeen ensemble la fa nekk suñ sécurité yi fa la nekk suñ jàng fa la nekk suñ xiif fa la nekk suñ jàmm fa la nekk na nag Kaolack li manqué yëpp ñun xam nañ ko amuñ. manqué neen liñ manqué dafa bëri. sonn neen askan bi bu nekk te ñu ngi yuuxu bu nekk xiif neen war a taxaw sama kanam Kaolack lu manqué dafa bëri amuñ sécurité canalisation yi yi soxla neen marché yoo xam ne gën na marché yu gën yi nii soxla neen ay hôpital yoo xam ne pour ñu mën cee fajoo yu gën yi fi nekk école yi tamit noonu soxla neen yu mel baykat yi tamit sonn neen soxla neen tamit suuf si tamit ñi dagg ko seen ñi ko soxla ñu jox leen ko liggéeykat yi tamit soxla bëgg neen a gis seen bopp ci dëkk bi parce que dañuy liggéey ba sonn li ñuy liggéey duñ ci gis dara parce que dëkk bi ci boppam moo tëddeewut ci yoon bëgg a waxal rek mooy liste bii nii li yeewee askan bi mooy liste jàmm list bi jàmm la oote bi naataange la list liste bi lislaam la oote liste bi léppan ci bu ngeen àndeek ñii liñ bëgg Yewwi Askan Wi di liste nationale kon ba tey dama la région de Saloum Yewwi Askan Wi di leen seetsi waaye itam di leen ñaan le 31 juillet ngeen taxaw yeewi seen bopp ngeen yeewi seen bopp ndax yéenay njabootu buuri Saloum yéen yéenay baykat yu mag yi yéen ñooy nitu jom yi kon bu ngeen dëkkee ci suuf sii nga xam ni suuf su baax la suuf su naat la waaye suuf su am xorom la te suuf si ba tey jii te suufu Saloum bi ba tey jii président Macky Sall war fee def ay usine de dessalement ngir ngeen mën a jëriñoo suuf si defu ko suuf si nga xamante ne coono kese ak seen ñaq moo koy siin waaye suuf si nga xam ne itam sunu borom bi am na lu mu leen dëfañal ci suuf muy su naturelle yi nekk ci suuf si yéen ngi bay eh, yéen ngi bay gerte yéen a ngi bay sésame waaye diwlin boobu bi ngeen ko lekk yéen ngi bay ñebbe yéen ngi bay dugub waaye usine amu ko pour transformer ces céréales là te loolu du yoon kon tey da am occasion ci élection yi ngeen def rééquilibre bi nga xam ni moo war gëmloo ne leen élection législative amul solo élection législative yi suñu boroom daf ñu jàppale dimbale ñu mais ñu possibilité ñu téye loxo yi baadoola yi di lekk suñu cere ji boobu ba léegi te dañoo ne du ñu suur te suñu gaz bii di ñëw ak suñu pétrole bii di ñëw moom la ñu bëgg nag man de est-ce ngeen ko nangu est kon nag jóg ngeen taxaw ngeen nekk benn ngeen ànd yéen ñëpp ngeen voté massivement Yewwi ngeen xam ni lii leen yàlla defal avant l'exploitation du gaz et du pétrole de 2023 li leen yàlla defal ngeen mën a téye la main de ce régime ce régime gourmand ce régime qui n'a jamais qui n'est jamais assoiffé téye leen loxoom ni ngeen koy defee mooy ngeen nangu majorité bi teg ko ci loxo Yewwi Askan Wi ñu doxal teg réew mi ci yoon bu ko defee contrat yi ñu saytu ko bala muy wéx kon nag maa ngi leen di wax mi hada au 31 juillet bientôt au revoir merci beaucoup merci. Thank you.

Koundéma dégg naa seen boobu dégg mu watal taas Ndefleng ba tout à gars yi dañuy fobeere moket ba kon kooku il faut mu wàññi loolu dawal yërmande kon ki nga bëgg jox kàddu muy suñu tête de liste nationale def xam ko muy le président Ousmane Sonko. sant ci terte bu exceptionnel bi damay doore sama kàddu ci néew kilifa diine yi ci fekk yu tedd yi jiital ci sama sëriñ sama baay sama xarit di sëñ Cheikh Mahi di ko gërëm ci dalal gim ñu dalal waaye di waxit ni diggante baay ak doom ku ci bëgga a dugg yaa ci des di nuyu suñu xalif suñu papa bu Léona Niassène di Cheikh Ahmed Tidiane di ko ziyaare bu baax ko sant surtout ndax xool naa xat-xat bi nga xam ne moo dëppoo campagne bi mu jàdd bi ñu fa waroon jàdd ñu koy gërëm di ko ziyaar ñoom ñaar ñëpp nag ñuy ñaan yàlla yokk leen wér gu yaram bàyyi leen fi lu yàgg yàgg yàgg waaye may leen ñu doon ñuy ak jàmm ndax ñun moom lañu ñu dox di nuyu ki nga kilifa dëkk bi ci wàllu administration wala àdduna mu xarit sama frère Serigne Mboup di sama xarit boo xam ne politique boolewuñu alal boolewuñu waaye xaritoo bu dëggu lañu xaritoo ñu ci genn boobu xalaatuñu woon ni moo ba nekk meeru Kaolack man ma dox ba meeru Ziguinchor tey jii ziare ji ko chambre de commerce ba démb ci guddi ñoo ci doon waxtaan far bu ko tax état di xarit suñu suñu imam muy imam Alim Badara Ndaw dama bëgg yéen ñëpp ngeen ànd ak man waxandoo imam Alioune Badara Ndaw n'est pas un terroriste imam Alioune Badara Ndaw n'est pas un terroriste imam Alioune Badara Ndaw n'est pas un terroriste xew ci dëkk bi mooy ñoom dañuy lëkkaloog tubaab bi tubaab yi ne leen il faut ngeen créer ay terroristes rek pour ñu mun a ne Sénégal li xew feneen ak feneen moo fa xew bu ko defee yow nga am sañ-sañu nag mën a voté loi yoo xam ne. kii qu'un seul terroriste il s'appelle Macky Sall. tamit li ma leen bëgg a wax. loolu weesoo li ma bëgg a wax ak yéen mooy Sénégal dafa am lu doy waar lu fi xew mooy dafa teg système boobu xam ngeen lan mooy objectif mooy fexe ba noot Sénégal yi ba kenn dootul ñeme wax Macky am ñu ko dëggal loolu nag tubaab yi bokk ci ay xalaatam katam bokk ci mu jël une partie de la presse nag yéen a ngi fàttali ko affaire Alioune Badara Ndao l'observateur lu mu bindoon Alioune Badara Ndao un dangereux terroriste xam ngeen lan ci jub mooy dem ba kenn dootul sañ a wax Sénégal man ànduma ak Macky Sall ko wax ñu ne la bu leen nangu ñu noppeen assumé leen ñeñu jël nag beneen bi mooy rebelle mbokki Kaolack le grand rebelle Ousmane Sonko vous salue su dee su mooy jàkkaarloog Macky Sall man maay le premier rebelle du Sénégal waaye dama bëgg yéen waa Kaolack yéen waa Kaolack yéen ñi ngeen xam ne pare ngeen pour jàmmaarloog Macky Sall dama bëgg ngeen ànd ak man wax bi ñun ñëpp nous ñëpp nous sommes des ñun ñëpp nous sommes des kon Kaolack est rebelle à Macky Sall ma ne dama ne xam ngeen xam ngeen Macky Sall Sall day fooy xelam dafa foog moo gën a muus sénégalais waaye li xale yi naan saana saana passera pas du noonu naka la <laughs> ah dafa foog ni moo gën a muus nit ñi jënd une de la presse bis mu ne ñu bindal ko ay titre yu rëy ñu foog ni loolu mun na terroriser sénégalais le réveil sera brutal le réveil de Macky et de sa presse corrompue sera dubitable bu loolu weesoo nag may wax mbokki Kaolack di ko wax mbokki militants yi ñu dajeel yépp liñ leen ñaan mooy un peu de tolérance vis-à-vis bu ñu sañoon ñun tey Kaolack la ñuy fanaan suba ñu yendu fi gannaaw suba ñu yendu fi parce que Kaolack ñun ñoo ko bëggal suñu bopp waaye. xam ngeen campagne bi lu muy demee fenn fu ne dañ koy mosal tuuti ndax ku war a def 46 département ci 14 jours boo doon def ñetti département par jour du tax nga pare fi mu ne nii waa Kaffrine ñu ngi xaar depuis 16 heures 17 heures passé na ñu ngi fii war a teer ji Tambacounda continuer Bakel continuer Matam dellu si Linguère def Mbacké daal di continuer Bambey war a continuer waat dem. Louga Saint-Louis dem wax naa Matam mooy Fouta duggee foofu ñëwaat def Dakar doog a dem nag Casamance xam ngeen loolu ñu war koo def ci 12 jours ama 13 jours kon na ngeen ñu nangul ni suñu defee lii su ma sañoon dañuy dugg ci marché bi ndax ñetti yoon yi ma fi mu sañoon naa ci marché bi waaye li duuf ci nag bi lépp xajul ci cin gi kon waa marché ba ñu ngi nuyu. waa Touba Ndorong ñu leen di waa feneen ak feneen waaye na ngeen ñu dox comprendre tuuti yéen xam ni mbir mi yombul ci ñun nañ leen ni loolu jërëjëf li ma bëgg wax tamit li leen ma wax tamit mooy mbirum RTS dama doon dootuma ci wax waaye naa ci wax lu tuuti xam ngeen tax ma ci wax lu tuuti. dama bëgg yéen ñii ak feneen fu ñu dem ngeen ban jaawat le ñaar agent yi ñëw di liggéey ay ndaw rek lañ dañ leen yónni ñu def seen liggéey du ñoom ñooy responsable li am bu leen kenn bu ndaxal tal bu leen kenn wax kàddu gu ñagas bu leen kenn def loo leen warul def li ci ëpp ci ñoom ñun lañu àndal ngeen xam ko dafa mel ni policier bi ñuy yónni pour mu sànni leen gaz lacrymogène yàlla xam na ni ñu ci ëpp ci ñun ci ñoom ñun lañu ñu àndal waaye dañu war a def seen liggéey loolu moo leen fi bàyyi kon man li ma wax politique bu RTS la politique RTS Macky Sall ak directeur général RTS ñoo ko yor ñooñu laa waxal waxuma ak agent yi bu leen kenn tuddati bu leen kenn waxati lu ñagas bàyyi leen leen ñu def seen liggéey waaye li ma wax ci RTS changé wu ma ci lu toll ni tarfata ay parce que nag ñun gannaaw yàlla ragaluñu dara de Sénégal ngeen jéggal ma ci wax ji Sénégal xam nga lu ñu bëgg ci euh, leader politique mooy nga doon ab naafeq gis dëgg bu wér kenn nga ne ko laal parce que il faut ñu rafetal affaire bi il faut ñu maslaha il faut il faut dama ne RTS est une chaîne la loi parce que moo ne ñun ñoo ko jox suñu impôt moom rek yeneen chaîne yëpp subvention mu ndaw la ñuy jox ci suñu impôt waaye RTS 100 pour cent budget ñun ñoo ko koy jox fi mu ne nii Macky Sall ko bëgg a tabaxal budget boo xam ne ëpp na 10 milliards xaw ma ñu ko bëgg a tabaxal ab di suñu impôt moo koy tabax lan mooy nag lan moo mën a justifier RTS ne man Ousmane Sonko moom Déthié Fall moom maam maam Diarra Bousso

waaye nañ ko dénoncé ne kenn mënu ci dara gis nga Sénégal débat yi fi war a am dina fi am parce que dafa am benn système bu ñu teg li ma leen wax léegi am ay nit yu ko ŋànk daal di teg seeni sens interdit nag li leen arrangé rek dañu war a wax ci réew mi leen arrangé wu kenn ko tudd ñu nekk ci sàcc xaalisu réew mi suba ngoon di ko séddoo loolu dina fi jeex. les les organes de presse daf ci am ñoo xam ne dañoo jëf seen choix ne ñoom dañuy ànd ak Macky Sall pour xeex ñu ñun bis bu ne ñu bind loo xam ne ay fen yi neen teg ko suñu bopp ñooñu ils ont fait leur choix ci fan di ñëw déglu leen ma bu baax ci fan yi di ñëw publier la liste rouge des organes de presse corrompus par Macky des organes de presse de l'affaire gis nga xeex dafay saf man ku ma xeex ba xeex waaye ñu dina xeex beneen bi la loolu nga sa organe de presse yor nga pouvoir boo xam ne mun nga yor mun nga rey nit mun nga suul nit man nii di wax ak yéen bu doon presse rek bu doon yenn organe de presse yi rek te nee ñoom ñoo ëpp doole Sénégal kon Ousmane Sonko dee na ci politique bu yàgg. dañu ma fenal fenal fenal fenal ba jëm xam mu dem waaye gis nga yàlla ak bi mu andee réseaux sociaux ba pare jox ñu ndaw ñu mel ni la ko presse jeex la coowal presse ñun duñu porter plainte duñu dem tribunal dañ leen di duma bëccëg mbir kam bis bu ne seen xol yi dagg ñuy wër di fen suñu tur di gën jëm kanam leneen li ma bëgg a wax nag lii mooy waxu politique bi léegi nag ma wax ci programme bi parce que élection lañu jëm te ñun ñu leen jàngal ci politique mooy politique xam-xam la politique du xuloo du saaga du xaste suñu gars yi seen jàng dafa màccul moo tax ñu wër ci tere di saaga politique xam-xam la programme bi ñu leen wax ci assemblée nationale. lan moo war a tax ngeen voteel ñu ak lan moo war a tax ngeen bañ a benn Benno Bokk Yaakaar xam ngeen tax waru leen bokkee voteel Benno Yaakaar mooy lan mooy seen bilan ci cinq ans yi ngeen xam ne da ngeen leen joxoon majorité écrasante à l'Assemblée ba ñuy dugg Assemblée nationale ñoom 127 députés la ñu amoon sur 165 ñu dem jëndi ay député ñoo xam ne dañoo xol woon ci opposition ñooñu dem fekk leen mujj gi ñu am 140 sur 165 députés lan la ñu def ci 140 députés yooyu saaga xeex dóore fen ak bañ a woteel waa jigéen loolu mooy assemblée nationale kon kooku est-ce que war ngeen koo joxaat majorité ñaareel bi war a tax war leen jox majorité Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar.

li ñu waroon wax kay mooy est-ce que yeggali mandat bi sax waaye naan day def troisième mandat loolu xalaatuñu ko Sénégal waaye nag waaye nag pour ñu éviter mu am fi troisième parce que jaral na ko lu ne ah xam ngeen lu tax gaz gi mu jaay ak rakam pétrole bi mu jaay ak rakam xaalisu réew mi ñu sàcc zircon bi pétrole day geneen ak geneen xam na moo leen ko gën a xam. xam na ni bu ñàkkee baa bi dina métti ci moom de ah xanaa xanaa xanaa xanaa nit ñu baax ñi nit ñu yéwén yi borom xol yu baax yi ku mel ni Khalifa Sall peut-être baal ko waaye man de su dee maa ñafal ñafal mu sax loolu nag moo tax mu ragal loolu moo tax mu ragal waaye nag dama ne xam ngeen xam ngeen mbir mu du soxor de waaye Sénégal dañu war a gëm dara ku ñu dénk li ñu dénk moom ko yor ko ci yorin bu rafet jëlal sa njaboot teg fële dërëmu askan bi delloo ko askan bi man de liggéey naa impôt domaine 15 ans wallaahi musuma jël dërëm bu mu musuñu maa ger musuñu maa ger musuma laaj xaalisu jàmbur parce que alalu mbooloo la alalu mbooloo ba ko fa loolu la tudd ñu jox la nga jël yow sa famille ak say militant ngeen seddoo ay milliards milliards ba pare jàpp ni war ngeen mën pare dem di seeni seeni xaalis

wala julli fajar ñaari rakk la julli it la wax ñaari rakk la boo bëggee taxawal ñetteel ñu sàbbal la moo ko fi wax de tey nee na moom moom xam nga xutbu la moom xutbu la day fatwa day day day def ay ana ustaas kii duñ koy waxee sax day def ay istihaad istihaad laa wax istihad moy interpréter alquran ak sunna pour génne yeneen règle nee na day def ay istihad ay ay qiyaas ba léegi li ko xam-xamam may mooy léegi julli it moom Serigne Macky Sall nee na julli it léegi ñetti rakka la te moom moo ne woon julli it ñaari rakka la léegi dinañ ko sabbal ba mu xam ni mën ngeen sabbal du mën ngeen sabbal ba ñu yegg ci loolu moo tax ma ne leen moo tax waruñoo voteel Macky Sall lan moo tax ñu war ñoo voteel nag dinaa ci jukki benn poñ ni ma jukkee démb mbuur benn poñ daal di jukki feneen benn poñ parce que dafa am solo ñu wax sénégalais lan mooy suñu programme fii nag dañoo nekk ci Saalum Saalum nag ku ko wax mbay nga wax wax nga gerte wax nga dugub wax nga mbox wax nga ak yeneen fi ñu toll nii di wax ak yéen fi ñu toll nii di wax ak yéen nawet bi commencé na est ce que am ngeen engrais engrais amu fi est ce am ngeen jiw bu mat su jiw amee est ce ay semence certifiée la jaadu ñu ci jamono non seulement semence certifiée amatul dañuy sol ci ay xott naan semence certifiée la ñoom xam nañu du certifiée mais li gën a garaaw mooy noo mënee jël ne famille bu nekk 7 kilogrammes par tête nga leen di jox kilo kilogrammes ci gerte lan la ci nit di def loolu mooy problème bi tey jii ñuy wax fii ci Saloum nawet bi c'est mal parti nit ñi jaaxle nañu béykat yi jaaxle nañu. mboq bi jafe na dugub bi jafe na kilo bu kilo dugub 400 francs fii ci Sénégal kilo dugub ah yéeg nga 500 déet matul 1500 déedéet gerte 1500 kilo gerte 1500 waaye man dama ne kilo dugub bi xam ñun moo tax. dégg na moo tax moo tax sama jaamu séeréer yaa ngi de sama jaamu séeréer yi nekkatuñu cere ñoom ñëpp léegi ñu ngi may laaj ñàkk temps 400 francs kilo dugub loolu mooy problème mu Sénégal moo tax ñu ne leen bu ngeen ñu joxee majorité à l'Assemblée nationale dégg leen ma bu baax ñun ñu ngi lay gouverner mais dañoo am sañ-sañ. moy xam ngeen li ñuy wax budget daan ngeen ma gis assemblée nationale suñu andee budget bi ñu duma leen duma yu métti maag ñoom Déthié Fall ak ñoom Aïda Mbodj normalement budget bu ñëwee assemblée nationale dama bëgg yéen ndaw ñi ngeen xam ni amul cër bu gën a am solo assemblée nationale pour ñu équilibrer les pouvoirs au Sénégal mais boobu day fekk nga am député bu mat député ba pare jox ko majorité buñ ñu andilee budget bi. Nous, bu budget bi ñu budget bi en compte li nga xamné moy de su dé ñoo majorité dañ koy délo Macky Sall ni budget la nga def ci mbay mi dafa am le protocole de Maputo ñu signé ko en 2013 Union africaine nous signé loolu dafa né réew bu nekk dafa consacrer 10 de son budget à l'agriculture. minimum 10 Sénégal musu koo respecté 10 pour cent de de ton budget da nga ko war a jagleel mbay mi buñ ko defoon léegi baykat si seen problème jeex waaye li ñuy def ci agriculture matul sax 5 pour cent jamono jooju nga jël alalu réew mi di ko pasar pasare jox ñu def seen yoon jaay suñu pétrole jaay suñu gaz la ca des jël tubaab bi naan la tabaxal stade nga dem tabax stade tabaxal autorail nga tabax autorail jamono jooju waa àll baa ngi bëgg a dee. waaye Sénégal yemul Dakarou, Kaolack ci Sénégal la bokk Fatick ci kaw Sénégal la bokk Ziguinchor ci Sénégal la bokk Matam ci Sénégal la bokk Diouflet, ci Sénégal la bokk Kédougou ci Sénégal la bokk ak feneen ak feneen kon beneen bi nga xam ne bëgg nañ ko def te Moussa dugal ko ci programme Moi la territorialisation des politiques publiques mooy région bu nekk suñu ñu nee budget bi 5000 milliards.

te ñu ngi xaar feneen waaye li ma neen bëgg wax dem leen jëli biir carte eh, dem leen jël carte de vote est-ce que am na ñu fi jëlagul seen carte de vote ce que am na ñu ko jëlagul dem leen jëli ko bu ngeen ko jëlee ba pare xam nga mu nga dañoo far waaye nag dee ko bàyyi kër ga damay bañ mu réer mu réer bu léegi bu ngeen ko jëlee ba noppi mbokk yi déglu leen dañoo faral di wax ni ndaw ñi am nañu engagement trop ci ñun waaye ñu bëri ci ñoom duñu wote dama xaw koo gëm nag xam ngeen ma xaw koo gëm xam ngeen tax ma xaw koo gëm xam ngeen tax ma xaw koo gëm ndaw ñi 65 de la population ñi nga xam ne ñooy les adultes ñoom war nañu mat moins de 30

kon dem leen voté ji ne bu leen yem ci lool sécuriser leen vote bi xam ngeen ñu sécuriser ne leen ma daanelee ne leen ma rek na ngeen sécuriser vote bi mooy na ngeen toog ci bureau vote yi na ngeen aay awante sax parce que nit mënul toog ngoon bu suba ba ngoon bu bu ko def seen yëfu caay-caay yooyu forcer bureau de vote yi pour bourrer urne yi ngeen li ngeen war def ak ñoom parce que ñoom alkaati moo mën a taxaw ñu xaw ñoo ñeme de gis ngeen ni romb nañ leen ñu tëju ci biir kër yi li Khalifa Sall naan gàtt sa gat sa bu ñu demee ci bés ba ku koñ bu nekk xamante ngeen ku bokkul ci koñ bi ñu dugal ko ci bis jël ko fële mu ñëw naan day voté tàllal leen ko ba mu ne ñereet dugalaat ko ci bisam mu dem yoon loolu rek mooy rek la problème la ca des nag bulletin baa ngi nii dem leen de porte à porte wax leen ak mag ñi wax leen ak ndaw ñi bi yomb na huit bulletins de vote moo am Yewwi Askan Wi mooy bi amul photo xam nga loolu yomb na yeneen yeneen yëpp am na photo su ngeen di wax ak mag ñi ne leen juróom juróom ñe yeneen juróom-ñett yëpp wala yeneen juróom-ñaar yëpp am na photo waaye bi amul nataal amul photo boobu mooy Yewwi Askan Wi xam nga yomb na. kon victoire au 31 juillet 2022 Kaolack va rester parce que nag élection yi ñu jógee opposition la ko tànn doo voté élection 6 mois ci gannaaw rek opposition la àndal six mois ñëwaat nga dellu ci Benno Bokk Yaakaar Kaolack va rester entre les mains de l'intercoalition Yewwi wàllu jërëjëf merci beaucoup. I'm not so for the bigger Sonko président yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na yàlla defal jàmm président yàlla na yàlla defal jàmm chers internautes euh, mi nous noonu ah, après le discours du président Ousmane Sonko euh, di ñuy continuer euh, caravane bi ah gars yi gunge euh, le cortège ba ñu génn Kaolack Hein, il nous reste encore un peu de chemin dans Kaolack mais l'essentiel a été dit ah, di ñuy génn tout de suite et on va essayer de rallier fi nga xamante ne moo di Kaffrine ci diggante bi am na ay localité yu ñuy xaar dinañ fa taxaw saafonte ak askan wi parce que yeewi askan bi. c'est le projet de tout le monde di leen jox di daje on va continuer ñu bàyyi tuuti ngeen def euh, ngeen vivre ambiance bi nit ñi ni ñu bëree macha allah waaye prochaine destination bi incha allah euh, ça sera sur la route de Kaffrine euh, président wax na bu ci kanamee dinañ dellu si waat ci yeneen live def li nga xamante ni moo di le débrief de ce discours du président Ousmane Sonko ici à Kaolack ci kanam tuuti. Thank you. Nous euh, un autre live dans moins de deux minutes ce qui se passe ici à Kaulak est exceptionnel Nous les dispositions pour vous faire vivre cela en intégralité euh, juste le temps que nous déclenchons avec euh, un appareil live bi ngeen di se fait inédit aujourd'hui à Kaulak. donc